jullit lay wax jullit mooy jullikat moo tax lépp lum la fekkee bu julli jotee bàyyi loola da ngeen ma julli la julli yàqal loola musiba la ci yow loolu musiba ñu ngi nettali ne ku tedd ke nekkoon euh, Mbàkke radiallahu taala anhu maam Cheikh Ahmad maam mos na di liggéeyloo ay nit ñuy liggéey ba waxtu julli jot ñu continuer di liggéey ngir di dabu ngërëmam moom mu julli ji ba ñëw fekk leen ñu julli mu leen lu leen tere julli ñu ne ah nak nakal xam naa dañ ko doon wax bëgg wax dañ ko doon liggéey waaye non seulement daf leen julli loo waaye fañ doon liggéey fa liggéey ba yemoon daf leen dagg leen foofu lépp sànni ndax ñii ñoo xam julli nu mu nu mu toll ndax julli bu baaxul dara du baax loolu la yonente bi alei salatu wax nee ne walu shay'in hasibu naasa yawma al qiyaama الصلاه لي يالا دي نك حساب دوم ادم يوم القيامه موي جولي بو باخي لب باخ بو باخو نك ني توب لب بن بار بن سو بابا دارا دو باختي نده يالا كوم كو توبات دارا دو باخ يالا نتي يالا موسل متى القران دي وخ يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسله والكتاب الذي انزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا او كما قال سبحانه وتعالى يلا نجي وقت كون اي ين ني گم يالا ني نامن گم لين نا نين گم يالا خم نغ ني او ني نين ني گم يالا گم لين كوكو انتربلاسيون بو اما ام سولو لا خم ني لم لاي سنت لو ام ام سولو لا لان ورسله اي يونتم تا نين سونو سانس نيك سيدنا محمد nañ ko topp ci ni mu daan waxee ak ni mu daan defe ak li mu jàngale ci téere mi waxoon naa la fi bés ne téere yi jóge ko ci asamaan wàcc téeméeri téere la ak ñeenti téere cent quatre téere waaye yàlla yëpp dafa def yëpp da ko mbëmbastal ci téere alquran bii soxofi ibrahima wu moussa ak lépp mu ci biir téere bi tawraat ak linjiil lépp a ci biir téere bi kon yow julit yittewul xam alquran surtout ci weeru koor wi su ko defee alquran nañu ak yonent yi jiitu ak téere yi jiitu ndax gëm gi boo ko gëmee gëm Seydina Muhammad si nga koy topp ndax ku gëm yàlla gëm yonent bi dangay nangoo topp ndigal yi te bàyyi tere yi loolu mooy loolu mooy firnde ne gëm nga waaye boo ne gëm naa gëm naa di ko wax ci làmmiñ te jëfoo ko loolu wax ju amul sëslaay la waxu neen la te loolu sum borom tabaaraka wa taala du la ko nangul in fokk rek boo dee inna alladina amanu wa amilu salihat moo ci topp gannaaw bu ñu gëmee jëf rek moo ci topp kon nag yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla moom la royloo te moo nañu ci hadis boo xam ne abi hurayra radiallahu taala anhu moo ne sama xarit bi de dénk na ma bés xan abi hurayra radiallahu anhu قال أوصيني ولا أوصاني حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا أبي هريرة سل مع جماعة ولو كنت جالسا فإن الله أعطيتك بالصلاة صواب في خمسة وعشرين درجة fi xayri jamaatin aw kama qaala alayhi salaatu wasalaam abi hurayra radiallahu anhu dafa wax ne benn bis sama xarit bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa ñëw dénk ma nama ma yow abi hurayra maa ngi lay dénk rekk waay del julli waaye del ji ci mbooloom del julli waaye del jullee donte kon danga feebar ba mënoo taxaw boo demee dangay ngay toog yow demal jullee ci mbooloom mu mel ni def ko ne lu tax yaa rasulilah mu ne ko ndax julli ci mbooloo ëppee na julli yow kenn ñaar fukki daraja ak juróom ci beneen riwaay bi mu ne ñaar fukki daraja ak juróom-ñaar kon yow mi xam ne jullit nga man ak yow nañu faxe bay sàcc sunu bopp ba waxtu julli jotee ñu bàyyi lépp lu ñu préoccupé dem joxe waxtu yàlla waaye defee ko ci mbooloo ndax def ko ci mbooloo dafa am ay ngëneel yu bari yu ci nekk yeneen bi mu ngi wax ne sa alayhi salaam mbooloo mu mat ñeent fukki doomu aadama wala mbooloo rek tukkur bu ñu jullee forcé dana ko ci yàlla nangul bu yàlla nangulee imaam nangul mbooloo mi bu nangulee imaam nangul kenn ci mbooloo mi nangulaale imaam nangul mbooloo mi yépp aw kama xaal salaay salaam kon julli ci mboolo waaye tey jamono ni mu tëddee julli yow kenn teewlu julli gi ba mu pare ah jafe na jafe na tarab voire même dañuy wax na sax c'est impossible daanaka julli ba pare te sax xel mi demul fenn ñi ko yàlla may ñu néew la yàlla nañu ci yàlla boole waaye jéemantu nag jéemantu booy julli di góorgóorlu di concentré ndax julli dafa laaj xuson wa xudon xuson ci xol xudon ci jëmm ku la gis nga am meloo xam ne kuy julli nga waaye kuy julli lu jàll nga gis kuy julli ja amee comportement boo xam ne mel ni daal li ngay def sentiroo ko des ngay xam li ngay def moo tax nag julli dañ koy jàng dañ koy jàng di laajte di laajte jàng du wees tey bunt yu ubbeeku na dëgg dëgg fa yàlla bu lu bëgg a xam ci sa diina tey mën nga ko xam su ko defee ñu tegandi foofu sunu baaraam dem xool sunu partenaires yi te dellusiwaat incha allahu yegg li indi question yi fi am incha allah rabbi su ko defee mbokk yi loolu lañ doon wax abi hurayra radiallahu taala an addisam boobu dafa am solo lool jar nay xalaat jullit ci mbooloo dafa am solo surtout nag ci weeru koor yu ñu nekk surtout ci weeru koor yu nekk ñu bàyyi ko xel bu baax a baax a baax a baax li ñu faral di gis nag mooy weeru koor bu commencé rek ndeysaan jàkk yi commencé fees waaye bu ñu demee ba ci dernier tournal bi ci see ci si yëpp commencé bus ak caaxu caaxu yi commencé way bo nangam nangam nañu góorgóorlu nañu góorgóorlu weeru koor occasion la wallahi occasion la boo xam ne bu la ko yàlla joxee góorgóorlu ci ndax bu demee liñ ciy am ci weeru koor rek nga koy mën a amatee te ah dund gi yàggul de yàlla nañu yàlla may ñu fanu gudd waaye dund gi yàggul bët bu set ñu gis yàlla ni muy doxalee dund gi yàggul ndaw dina dem mag dina dem ñëpp dinañ dem te kenn xamul kañ la te toujours day betti su ko defee fan yi ñu am nañ ci góorgóorlu bu baax a baax baax baax su ko defee ñu ngi jëm ci fan yu mujj ci weeru koor guddi yu mujj yi xam ne yonent bi aleyhi salaatu salaam daan la dundal guddi yëpp waaye guddi yu mujj yi moom daanul ci nelaw sunu yaay Aïcha radiyallahu anha moo wax ne bu guddi yu mujj yi ñëwaan non seulement moom day yeew di jaamu yàlla waaye day yeewaa kër gi yëpp ataa xale yu ndaw yi da leen di yee ngir lan miinal leen mbaax ngir lan taataan nañ leen yiw sigam na ku toll ni yonent bi alayhi salaam xam na moom la yàlla ne ko baal naa la say bakkaar yu paase ak yu ñëw te moom maxsum la dootoo fi bakkaar alayhi salaatu wasalaam waaye moom dong la yàlla ne ko li yaxfira laka llaahu maa taqaddam min zanbik wa maa taaxar benn yonent amu ko benn wali yu amu ko kenn amu ko waaye keroog la gën a gën a takkaayu gën a mën a jaamu yàlla ba sunu yaay Aïcha na ko waaye yow xanaa yàlla mu ne ko xanaa man du ma nekk afala akuna abdan shakura xanaa du ma nekk boo xam ne damay sant yàlla ci xéwal yi ma defal yépp sallallahu alayhi wa sallam kon nag man ak yow nañu góorgóorlu fukki fan yu mujj yi ñu bañ naan eh, ñee koy defak ak ñee koy def tahajjud te muy naafiloo guddi fan yu mujj yi alquran moo ko digle yonent bi daan ko def kon bu ci kenn jiitu sunu mag ñi nag ñëpp dañ ko daan def waaye xëy na dañ ko daan defee seen biir kër yi ñoom kese jamono nag lu mu indi bu fekkee ne lislaam terewu ko du lu xaraam bonul ba ba nga ànd ci ndax kat ne nii yiw jafe nay am te bakkaar bari na bu njëkk nag yiw yomboon na bakkaar néewoon na ñoom lu ne jigoon na leen waaye ñun jamono ji ñu toll yiw jafe nay am tarab ndax dangay am saw yiw ba di yaakaar ne yaa ko téye ñu foqar ñu ko sa loxo jox ko keneen ndax naka lan lan mooy loolu dañuy fexe ba nga wax ci nit ci deram te yonent bi aleyhi salaatu salaam nee na booy wax ci nit jul nit deram lu bon dañuy sippi ay ñaaw ñaawtiifam jëlu ko yenn jël say yiw di ko jox kon fi mu ne boo góorgóorloon ba am yiw sax garde ko dafa jafe kon loo ci am rek du doy kon ñu góor góorlu jàkk yi ubbi juma yi di fanan ci jàkk yi di julli soo mënee dem demal soo mënut te mën koy def sa kër def ko te nga yéene waale utaale laylatul xadar ndax kat yonent bi alayhi salaatu salaam moo ne na ngeen ko seet ci fukki fan yu mujj yi ci koor kon nag fukki fan yu mujj yi ci lay nekk yàlla nañu yàlla dëppale laylatul xadr laylatul xadr nag benn guddi boo xam ne moo gën juróom-ñett fukki at ak nangam yoo xam ne jaamu yàlla guñ nangu ah mbokk lii bari na de. te fi nit ñiy dund juróom-ñetti fukki at bariwut kon boo faxee ba am benn laylatul xadr ci sa àdduna yow dëgg-dëgg yàlla am nga yiwu rëy woo xam ne bu la ko yàlla dencalee yow man xam bu la ko fayee mu doy la sëkk comme nag xamoo gan guddi la yow maaseel guddi yëpp guddi gune rek góorlul def ci dara di ci sàkkoo dajeeg laylatul xadr yàlla ci mbaaxam mën naa lay dajaleeg moom su ko defee ñu ñëw ci question yi fi de rot si kii day laaj mu ne moom maanaam dafa war a julli ñeenti rakka mu juum dolli ci beneen rakk muy juróomeelu rakk naka muy def waaw mbokk mi loolu dangaa dolli ci julli gi ku dolli nag dangay sujjóot baada salaam sunu téere bële di imaamul axdari loolu la ñu jàngaloon koo xam ne dolli nga ci julli dangay sujjóot baada salaam allahuma dangaa dolli kemal julli boo doolee kemal julli nag maanaam julli nekkoon ñeenti rakk nga dolli ci ñeenti rakk julli ke day yàqu wata wallahu taala alam bi mu ne koy julli fatte jang ñaari rakay ñaari rakay yu xamne ben xam bu ne da ngay jang fatiha ak sar nga fàtte sar boko ko ba julli gi jeex wala boko fatte ba romb len do ci del ci wat budé jangum kaw da nga don jang ci kaw masalan timis nga fàtte sar, dang koy sujudal qabla salam bu dee tisbaar la nga fàtte saar da koy sujootal baada salaam ndax ku bàyyi jëhër muy biral ci jàng sujootu baada salaam la bu dee saar la bu dee fatiha da koy indi ba pare sujoot baada salaam waaye bu dee saar la da ngay sujoot qabla salaam ndax ñaari sunna nga bàyyi taxaw bi jàng bi sunna la taxaw bi jàngale te eh, taxaw bi sunna la te ci julli sunna dong la ñuy sujjootal farata kenn du ko sujjootal wallahu taala alam kii mu ne day laaj lan mooy àtte ci takk suuf waaye lan mooy takk suuf d'abord bu fekkee ne danga am sa soxna bàyyi ko ci réew dem ci beneen réew dem ba nga xam ne jullit nga bëggoo def lu naqar yàlla nga gis fa soxna soo xam ne war ngeen mën ànd jaamu yàlla nga takk ko ci condition yi lislaam santaane takk maanaam am na seede jigéen ji mayut la boppam ay waajur ñoo la ko may am na kilifa yu ko mayee jox nga ko can te yow jullit nga te paase woo ñeenti jabar te moom jigéen la jullit la te amul beneen jëkkër nekkut ci litige divorce lii de bu amee boo takkee sëy bi sëy bi dana dagan donte kon waxoo ko sawaa kër fekkee loolu tax waaye nag bu fekkee ne danga nekk ci loola neex ba ëmb bëgg feeñ ñu ne nañ ko étufe gaaw takk ci kaw ëmb bi loolu du dagan kenn du takk jigéen ci buumu jàmbur kenn du takk jigéen fekk dafa ëmb loolu dafa xaraam loolu dafa xaraam bu fekkee loolu mooy takk suuf loolu dafa xaraam ndax sëy dafa am condition yoo xam ne mooy tax mu wér mooy na am seede kenn bu ci forcer kenn euh, can na teew jigéen ji bu mu maye boppam na am ay waajur yu ko maye walla waajur yi am kuñ désigné am kuñ jox ndigal ci mu maye ko yii bu amee mu am nag ay seede yii bu amee sëy day wër waaw beneen xel la nag bu taxee beneen raison bu taxee ngay foyee diine yàlla ji te yonent bi alayhi salaatu salaam moo ne an nikaahu sunnati sama eh, sëy takk sëy sama sunna la man yonentu Yàlla nga koy foye nag ah eh, sa mbir la wallahu taala alam kii day laaj mu ne ki xam ne dafa dëkk ak jàkk ji bu jàkk ji di julli mu ànd ak ñoom di julli waaye moom du dugg ci jàkk ji jamais du dugg ci jàkk ji mukk julli ñoom waaye nag bu jàkk ji mu ànd ak imam di julli waaw bu fekkee ngànt tax bu fekkee ngànt tax de amul benn problème waaye bu fekkee du ngànt nag bàyyi na li ko alquran wax ndax alquran dafa ne warka'u ma'a raaki'iin dem leen ànd ak ñiy julli ngeen ànd ak ñoom julli ku bàyyi li alxuraan santaane nag sa yëfi bopp nga def te ku def sa yëfi bopp mardud wax jëf ji dañ la koy delloo du am benn njariñ waaye bu fekkee ngànt tax ngant li mën na nekk yow mënoo jaxasoo ak mbooloo am na ñoo xam ne bu ñu jaxasoog mbooloo daf leen di jural coono kooku lislaam tegul la ko bu fekkee ne am nga foo xam ne mën nga fay làqu ànd ak imam di julli te duggoo ci biir di am yoolu mbooloo ndax yaa ngi ci julli mbooloo gi fekkee ne yaa ngi gis imam wala yaa ngi dégg imaam wala yaa ngi dégg jottalikat bu fekkee jàkk ju ñuy jottalee la waaye nag li lislaam di bañ mooy nga def ko ngir rëy wala xeebaate wala teg sa bopp ëppal sa bopp nit su boobaa moom du dagan waaye nag bu fekkee ngànt tax am na ngànt yoo xam ne islaam daf la sant sax bu bu nekkee ci yow ay odeur yoo xam ne bul jaxasoog mbooloo lu mel ni nga lekk laaj laay bii charia daf lay conseiller daf lay déconseiller nga dem mbooloo mi ak yéen yi gis nit ñoo xam ne ñu ngi sol yëre yu waxtal rafet nga mel ni man sa yére yi tilim nga nekk mécanicien nga xam ne boo jaxasoo ñoom da leen di taqal kooku dañ la dañ bëgg ci ci ci rafetalu lislaam nga retiré wu tuuti pour nga bañ leen euh, maanaam nga bañ a ndax boo ko moytu sax di yow dinga yàq seen julli ci moytu gi ñu lay moytu <laughs> su ko defee yàlla yàlla defal ñu dégg ak topp euh, yàlla defal ñu tawféex kii lay laaj mu ne moom koo xam ne dañ ko may soxna mu ne du ko siiwal ci koor ne ne sharia la ah déedéet ndax ci weeru koor dañuy takk sëy te yonent bi daf ne ihlinu nikaaha de leen siiwal sëy li tax xel bi benn wax ci benn rek li tax lu pourquoi ñun war a siiwal sëy ba ñu daganal ci céet ñu ñu xumbal ko mu am yëngutu bruit bañ ne bu ku lu xew ñu ne maam Cheikh Diop mooy takk soxna tey ndax lutax tax bu andek soxna si ñu ne ah waaye yëgoon naa ne kero doon na takk soxna nga mën a préserver nit ñi ñu bañ a wax luñ xamul waaye bu fekkee da nga takk nag nëbb ko ëllëg ngeen ànd kenn yëgul fu ngeen takkee loolu moom loolu tout njàngaleem seyduna mohamed alayhi salatu salaam bi ci des ne weeru koor la duñ ko ci siiwal xanaa loolu aada la waaye nag du sunna te du sharia والله تعالى أعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته